noonu Omar ci at moomu la def jullig baaw naan jàpp ci loxol Abbas ibnu Abdul Muttalib def tawassul ci moom daal di wax sun borom ni ko daanañu def tawassul ci sa yonente léegi noo ngi nii di def tawassul ci sa baayu yonente bi ñaan nga xett li nit ñi la ñaane ba boof ñaan ba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 solo si jamp mo bëgg sama bataaxal bi sa bo ci jotee lepp lo jàppoon nang ko bàyyi te ñëw waaye Abu Ubayda bu jàngé jàngee bi dafa xam rek Omar daf ko bëgg musal ci mbass mi rek motax mu diko wo bu bindaat ko bataaxal ni ko dama bëgg lo li nga may doyee xamna ko ma bëgg nga jéggal ma ndax dama nekk ak mbolom jullit mo xamni sama bop gën a lu ma Omar bu jàngé jàngee bi dafa joy ba mbolom mi fi jege won dañ ko ne Abu Ubayda da faatu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 Euh, dogu ci wër dëkk yi ak moomeel yi wër kilifay jullit yi mu yebal ci ay birab ziyaarenteeg ñoom dogu it ci ñëw saam ngir séddale si miraas yi ngir dafa ñi ci faatu ñu leen di miraas dafa lëntoon lool ci jullit yi woon ci ñëwaale fi ngir séddale miraas moom yi noonu ñëwee ba miraas ña fa faatu woon daal di leen di xutba waar leen daal di dellu